الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فالاعتقاد بأن المسيح عليه السلام هو الله أو ابن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا اعتقاد فاسد وضلال مبين شهدت بطلانه الفطرة السوية والأقول المستقيمة mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi pas-pas bi nga xam ne moom la nasaraan yi tasaare ci yonentab yàlla bi di isa alayhi salaam ñenn ñi ne mooy yàlla ñenn ñi ne doomu yàlla la te sunu boroom kawe na jalla jalaaluhu wees na loolu sunu boroom kawe na lii tooñkat yi di wax kawe gu rëy pas-pas la boo xam ne faasid pas-pas bu yàqu la pas-pas bu jàdd la bu jaarul yoon gëm ne Isa mooy yàlla walla doomu yàlla la yemul ci pas-pas bu yàqu waaye réer la looloo tax ci suratul fatiha sunu borom subhanahu wa taala booleel nu ci bu fatiha bi di jeex ñu ñaan ko mu bañ ñoo boole ci ñu mere ci ñi mu mere ak ñooñu nga xam ne dañoo réer te seen réer yépp lu du lenn lu dul danoo sàkkal yàlla doom pas-pas la boo xam ne bu yàqu la te réer la réer bu bir te loolu fitra bi yàlla bind nit fitra gu set gu sell ak xel yu set yu sell yi yu jub yi nangu nan ne yàlla amul doom wa yakfi an yuqaalu fi istihaalati hada aqlan bokk na ci loolu li koy dindi mooy xel mu set mu sell xam na ne lu wër loo xam ne amul benn farfarloo ci wax ju ñaaw ñii ñu wax ne yàlla dafa am doom wala yàlla la xam nañ ne loolu mbokk yi kooku ñu naan doomu yàlla la bés ñëwoon na ci jamono yahud yi jàpp ko def ko ab jaam yeewu ko daal di koy jiital di ko dóor di tëfli ci kanamam di ko sotti ay suuf toroxal ko waaye yemuñ ci loolu dañ koo jàpp christifié ko daal di koy yeewu ginnaaw ba mu faatoo nee nanu ñu suul ko waaw mbokk jullit yi ndax yàlla subhanahu wa taala wala kuñ ne di ko askanale doomu yàlla est-ce que loolu war naa nekk ci moom yahud ya ko jàpp axasahu lyahud wa saaquuhu baynahum zalilan maqhuran wa hum yabsuquuna fi wajhihi wa yadribuunahu summa salabuuhu wa taanuuhu bilxirba yamuñ ci rek toroxal ko waaye amul lenn lu ñaaw looy xalaat lu dul def nañ ko keroog kii nuy wax doomu yàlla la loolu est-ce que xel mu sell mu teey mu set dana nangu loolu yamuñ ci toroxal ko waaye bal dañ koo jàpp daaj ko ñu ne bu mu faatoo suul nañ ko ginnaaw ñetti fan summa qaama min qabrihi après mu daal di dekk ci bàmmeelam ku nu rey suul la ñu ne dekkiwaat nga ginnaaw ñetti fan ci sa bàmmeel mbokk yi laaj bi mooy keroog bañ ko reyee asamaan ak suuf kan moo ko doon contrôlé bu dee mooy yàlla jaami yàlla yi kan moo leen doon dundal kan moo tasaare woon ngelaw li kan moo téye woon asamaan fi hadha al waqt wa man kaana mbokk yi ana kan yudabbiru amra as-samaa'i wal ard kan moo doon lijjanti mbiru asamaan ak suuf wa man allazi xallafa rabb subhanahu wa taala fi hadihi l mudda waaw moom ban ko reyee comme yàlla la kan moo ko wuutu woon ci place am ñetti fan yooyu ñu ko suul ci biir bàmmeelam wa taala fi hadihi l mudda diir bu yàgg boobu di ñetti fan buñ ko suul wa man allazi kaana yumsiku sama ku tee woon asamaan si ba daanuwul ci kaw suuf ca jamono yooyu xam ngeen ne nee nañ wa huwa madfunun fi qabri dañ koo suuloon ci bàmmeelam loola tax mbokki jullit yi cheikh al islam ibnu taymiya ibnu alqayim rahimahullah dafa laaj ay laaj yi wane dalil al aqliya anna isa laysa ilahan cheikh al islam dafa laaj ay laaj nee na a ubadul masih lana sualun nuridu jawabuhu mimman wa'ahu yéen ñi jaamu isa nun dey dañoo am ay laaj yoo xam ne ñu ngi koy jubal ci yéen ku ko ci xam waay nañ ci dimbali nuridu jawaabuhu mimman wa'ah képp ku xam laaj yooyu ñoo ngi xaar nga tontuñu ida maata al ilahu bi sani qawmin amaatuuhu fama haada al ilah nee na yàlla joo xam ne ida maata al ilah bi sani qawmin yàlla joo xam ne ay nitam yamu sàkk ñoo ko rey waaw yàlla joo xam ne ay jaamam ñoo ko rey amaatuuhu fama haada al ilahu nee na kii yàlla joo xam ne ay jaamam a ko rey kon xam ngeen ne kii du yàlla wa hal ardaahu ma naalahu minhu waaw keroog bañ koy rey moom yàlla jooju jaamam yi di ko rey mbokk nitam yi di ko rey ndax lañ ko doon def di ko dóor ak di ko jam ak di ko daaj ndax neexoon na ko laaj bi mooy loolu hal ardaahu ma naalahu minhu lañ ko doon def moom yàlla boobu ndax neex na ko kon de fa busraahum idan naalu ridaahu kon de ñoom kontaan nañ comme na am nañ yàlla joo xam ne ay jaamam ba mu koy rey ba ñu koy rey moom yàlla jooju kontaan na kon de ñooñu am nañ mbégte waaw bu fekkee loolu la mu ne beneen laaj bi mooy wa in saxita allazi faaluhu fihi fa quwwatuhum idan awwahat quwaahu su fekkente ne moom yàlla jooju bañ koy rey kontaanu ci gërëmu ko waaw kon ñu ne jaamam ñi ñoo ko ëpp doole ñoo lem doole yàlla jooju ëpp ko doole rey ko kon benn amu ci yàlla joo xam ne ba koy jaamam yi di rey da cee kontaan ba ñu am mbégteem wala yàlla joo xam ne bañ koy rey kontaanu ci dooley jaam ñaa ko ëpp lem dooleem moom yàlla jooju ba ñu rey ko lépp ay laaj la yu ibnul qayim laaj mu ne waxal baqiya alwujudu bila ilahin waaw keroog ba ñu koy reyee adduna bii dafa des amul yàlla bu koy contrôler allahu akbar yàlla ju ñuy rey ak di ko daaj loolu munta nekk samiun yastajibu liman daa yàlla joo xam ne mooy dégg mooy wuyu mooy nangu ñaanu aji ñaan mbokk yi mu ne waxal xallati tibaaqu samaau sabu samaau asamaan yu juróom ñaar keroog bañ naan dañoo rey yàlla wala dañoo rey doomi yàlla waa lan moo fi xew amoon nañ benn président boo xam ne doomam ci benn immeuble dong la nekkoon immeuble bay lakk gaa yi yuuxu ne immeuble baa ngay lakk mu ne sama dooma nga fa gaa yi teg moto yeeg oto yi mu ne loolu dafa yéex bàyyi leen ma daw ko pour fekk ji doomam xool ko pour sauver ko waaw te loolu soriwul de loolu Sénégal gi la xewoon ci immeuble bu tudd immeuble Tamaro mbokk yi kon pas-pas bu wér bu leer bi mooy sunu borom subhanahu wa taala moo ko bind mu nekk jaam bu yàlla sàkk ni mu sàkkee jaam ñi yàlla ne ab jaam la wamal masih ibnu maryam illa abd yàlla ne lu nekk lu dul jaam ba pare rasul ab yonent la bu yàlla yónni ndaw lu yàlla tànn mu ne bu fekkee da ngeen di yéemu ci mbiram inna allazina yataajabuna min amri almasih limaada la yataajabuna min amri al adam yéen ñi waaru ci mbiru isa ne dafa juddu amul bàyyi lu tax du ngeen yéemu ci mbiru adam inna masala isa inda allah ka masali adam xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fa yakun alxaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin yéen ñi jommi ci mbiru isa lu tax du ngeen jommi ci mbiru adam yàlla nee na mbiru isa ak aada ak misaalu isa mu ngi mel ne rek adam adama yàllaa tibb suuf si xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fa yakun yàlla moo bind adam ci bisu àjjuma guddaayam nekk 60 xasab ci déggin ñu ne 60 mètres yaatuwaay bi nekk 7 mètres allahu akbar jalla jalaaluhu sunu borom moo bind noonu aadam ca njëlbéen ci bisu àjjuma yàlla nee na maa ci dugal ruu man yàlla maa ko wàcce ci kaw suuf lépp ci bisu àjjuma bi loolu kay moo gën a jommale ndax ki amul fu mu tàmbalee mbokk yi kon sunu borom jalla jalaaluhu moom kenn mooy yàlla moom yàlla moomu amul moroom xatta jinne yi sax nangu nañu loolu jinne yi nangu nañ ne yàlla amul soxna yàlla amul doom jinne yi wax nañ ne lenn ci seeni mbokk ñoo doon fen fen yooyu ndeke du dëgg moo tax keroog ba jinne yi déggee ñu naan yàlla am dafa am doom ñoom sax dañoo yuuxu naan wa annahu taala jaddu rabbina mattaxasa saahibatan wala walada allahu akbar dégg leen baat yi jinne yi tàmbale wa annahu li wóor tey mbir taala kawe na ñu ngay kawel borom bi ñu ngi koy màggal jaddu rabbina sunu màggaayu borom ah kon jinne yi sax wuute nañu nit ñi ndax nit ñi moom ba léegi ñoom nangooguñu loolu waxuma sax nit ñi waaye lenn ci ay jullit lenn ci ay jullit nga gis ci weer wi nu nekk ci feet yooyu la nu nekk di ko feetu xoolal fi mu nekk nii réew mi népp a ngi ci feet lu nuy feetu yàlla moo am doom allahu akbar kaburat kalimatan taxruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba yàlla nee na baat bi rëy na ay fen yu ne fang yu leer ñuy tuumaal yàlla ne yàlla dafa am doom kon war na jeex war naa génn ci xelu jullit ñeeg seen xol ak ci seeni melokaan ak ci seeni jëf ñu dëddu yi nga xam ne colonialiste yi ñoo ko teg suñu kaw ñu xam ne nun ay jullit lañ sunu diine lum nu wax mooy yàlla kenn la qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad saar bi boroom xam-xam yi nee nañ mooy carte d'identité yàlla li ci doy waar mooy li ëpp ci jullit yi boog xanaa jullit bu alko ñépp mën nañ ko waaye fan la desee mooy pas pas bi est-ce que am nañ boobu pas-pas li saar bi di jàngale ak la muy wax ak di ko melal ak di ko firi est-ce que jullit yi dégg nañ loolu waaw est-ce que jullit yi gëm nañ loolu sunu gëmoon ne feet yi du sunuy feet weer yi du sunuy weer bés bi du sunu bés kon dana noppalu kon dana mel ne Sénégal doomu aadama nekk fi waaye lan moo lan mooy problème mooy feet yi saa yu xumbee yan ñoo ko xumbal mooy jullit yi jullit yi barki démb am na ab ministre bu ne ren kenn du feetu kenn du taal pétard mbokk yi ndax xam ngeen pétard yi ñuy taal place de l'indépendance xam ngeen ñaata million lañ lañ la suñ jógee ku nekk mu gëstu ji ko ñaata million la ñuy jënd ay pétard ci bis boo xam ne ci réew moo xam ne réewum jullit la quatre-vingt-quinze pour cent musulman ñu leen di taalal ay pétard ci ay caaxaan kon war nañu góorgóorlu xoolaat suñu bopp gëstuwaat suñu bopp xam ne ci ay caaxaan la nekk yàlla subhanahu wa taala mooy kenn amul ñaar borom bi nee na bu fekkoon ne sax ñaari yàlla ñoom asamaan law kaana fihima aliha la fasadata bu yàlla yu bëri amoon ci kaw suuf xool leen tey ñiy jaayante doole xool leen frontières yi dëkk yi dëkk di xeex guddeeg bëccëg dëkk bu nekk day jaay sa borom problème ay ay ay doole waaw kon bu fekkoon ne loolu am na ci kaw asamaan kon luy xew kon ñun dootuñu mun a dem am istiqraar sax ci kaw suuf ndax bis bu nekk ay bomba ngi daanu sunu kaw ak ay néew ak ay immeuble yu rot xam ngeen ne ay yàlla yuy xeex kon loolu tax ñu war a setal pas-pas boobu loolu moo jur moo jur moo jur ba ngay dégg fii démb dégg naa ci rajo waxu kufr boo xam ne yàlla dara amul kudul yàlla moo tax kenn amul kudul yàlla kon koo gis yàlla la yow mii yàlla nga ñëpp yàlla lañ loolu du waxu jullit yàlla kenn la lan moo tax ñu naan dara amul lu dul yàlla bañ a dara am yow yaa ngi ni dara nga sa soxna dara la sa kër dara la sa am am dara la kon baatu laa ilaha illallah boobu nuy naxee naan dara amul lu dul yàlla firi laa ilaha illallah soo ne laa ilaha illallah nga firee ko yow tamit firi njuumte mooy dara amul lu dul yàlla yàlla waxul loolu waxul dara amul baatu yàlla la dàq laa ilaha dafa am lu mu dàq dafay dàq lépp lu ñuy jaamu tadu yàlla nafiyun jamiu ma yubad min dunillah wal ilah musbit al ibadatu lillah kon loolu la laa ilaha illa di tekki waaye boo nee dara amulul yàlla rek waa ji na la voilà léegi nag noo naan dara amulul yàlla nag yow kon yow amoo kon yow yàlla nga ndax yow yaa ne dara amulul yàlla firi boobu baaxul loolu waxdatul wujub ñoo koy firi te loolu wérul baaxul démb barki démb dégg ngeen ko ci firi yi ci guddi yi ñuy gàmm di yuuxu Euh, la ilaha illallah sa yaram day daw te dara amu ci te li gën a ruslu ci Sénégal mooy seen xew yëpp lekk la lekk lekk rek télévision yi sax lekk la ñuy wane waaw ay bernde xoolal ber lekk rek kenn du dem foofu sax ba dégg Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam nangam nangam nii la meloon li mu sonn yonent bi ni mu sonnee wallahi bu fekkoon ne dinañ wax waxam kon nit ñi xam ne kii kii kii kenn la yonent bi ni mu sonnee ci diine bi pour mu tas li mu daj alquran ak yi mu wàcc ci kawam kon danañ xam kan mooy Seydina Muhammad waaye li doy waar mooy da ngay gis sax ku daan julli fi waxtu yi dem ci xew yi ñëwaat fekk du julli bàyyi waxtu yëpp sànq boo ko waxee mu ne taluma ko woon yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala sunu borom subhanahu wa taala dàq na lii jaam yàlla yi di wax naan yàlla dafa am doom sunu borom subhanahu wa taala kenn la badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba allahu akbar sunu borom nee na man maay ki fent asamaan ak suuf maa ki ko bind asamaan juróom-ñaar suuf juróom-ñaar mu ne waa jooju buur boobu kooku mel noonu anna yakunu lahu walad naka la ko naka lay amee doom te amul soxna yàgg nañ joxe misaal kenn ci ñun tey suñ na woon baayam dafa am doom place sangam ma ngi fay ngénte te amul doom lan la ñu wax baayam boobu yéegal leen ko nag ku nekk na ko jël mu def ko kilifaam sa kilifa googu nga gëm muy sa kilifa diine suñ ko ne woon mu ngay ngénte place sangam te amu fa doom lan lañ ko wax kenn ci nag ci ñun bugg ko ci kilifa yi bugg ko ci baayam ñu bugg koo jox yàlla sunu borom subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa za kamaaluhu moom borom màgg gi moo tax moom yàlla jalla jalaaluhu mu wax ci hadisul qudsi mu ne yaqulu llahu aza wa jal kadabani ibnu adam walam yakun lahu dhalik wa shatamani walam yakun lahu dhalik allahu akbar yàlla leen doomu aadama daf maa fen loo man yàlla borom asamaan ak suuf ma wax ba pare doomu aadama ne du dëgg yàlla nee na may wax loolu noppeeguma doomu aadama ne ma daggat saaga daal di ma koy saaga te loolu yàllul sama digganteeg moom allahu akbar ñu ne waaw yàlla nan la la doomu aadama wedde mu ne fa amma takzibuhu iyaaya fa qawluhu lan yuidni kama badaani yàlla nee na doomu aadama fenloo bi ma fenloo mooy nee na moom doomu aadama man yàlla ni ma ko bindee su deewee ba ñu dugal ko ci suuf ba suuf si lekk ko ba mu jeex man yàlla mënuma ko indiwaat mu nekkaat nit allahu akbar ñu ne waaw yàlla ban saaga la la doomu aadama saaga mu ne wa amma shatmuhu iyaaya fa qawluhu ittaxaza allahu walada wa ana al ahad assamad alladi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuan ahad saaga bi doomu aadama saaga yàlla mooy yow yàlla da ngaa am doom dëgg la saaga la kuñ ne da ngaa am doom te amoo jabar lu la wax moo tax dégg ngeen yàlla lu mu wax ci baat amma shatmuhu iyaaya fa qawluhu ittaxaza allahu walada wa ana al ahad yàlla nee na man kenn laa assamad man lañ jublal mbir yi alladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad ixwat al iman fa maza baada al xaq illa dalal ginnaaw dëgg ginnaaw lu leer lu ne weng dara desatu fi lu dul ay caaxaan nanu nekk ay jullit lu nu yonent bi joxoñ moom mooy dëgg jullit amul lu dul ñaari feet korite ak tabaski leneen loo fi dégg ñu koy feetal ak di ko màggal ak di ko gëm ak di ko réyal du dara parce que bokkul ci sharia lu yonent bi indi woon dong dong mooy dëgg leneen lépp ay caaxaan la yàlla wax na ci quran wa ma aataakum rasul fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen yonent indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen mbokk yi beneen dafa am benn waay u teg kado bu rëy muy laaj laaj yii mu ne ku ko xam xaalis bu bëri la waa ji teg mu ne ku ko xam rek mu jox la xaalis bi kon yéen ñii ñëpp ñu ngi jottalil waajooju laajam yooyu képp ku ko ci xam ñun tamit bu ñu ko waxee dinañ ko jottalil waajooju waa ji nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaata yoon la gàmmu juddóom ñaata yoon la gàmmu juddóom ñaata yoon la yonent bi gàmmu juddóom ñaareelu laaj bi mooy fan la ko doon gàmmoo Makka wala Médine ñetteel bi mooy gàmmu googu yonent bi doon gàmmu ñaata gëléem la ci rey ñaata nag la ci rey ñaata xar la ci rey ñaata béy la ci rey ñaata ñaata beneen bi mooy ban invité d'honneur bu gën a rëy ci àddina bi bu mu invité woon beneen bi mooy woy yañ fa doon woy yan woy la ak woykat bi ko doon woy nu mu tudd fu mu dëkk mu ne ku xam lii rek xaalis bu takku laa lay jox moom ñu wax nañ ko jottalil ñun tamit jottalil nañ ko kon yéena ngoogu dégg ngeen laaj bi ma jaaraat ci yonent bi ñaata yoon la gàmmu fan la doon gàmmoo Makka wala Médine gàmmu googu mu doon gàmmu ñaata yoon la ko def benn ñaar ñett ñeent ñaata yoon yonent bi nag dundoon na juróom benn fukki at ak ñett kon xanaa war naa bëri ñaata yoon la ko def ñaata nag ñaata gëléem la rey ñaata nag ñaata xar ñaata bëy la la ci reyoon ci gàmmu yooyu mu def yépp fan la ko defe woon Makka wala Médine ban invité d'honneur bu gën a rëy la woowoon ci àdduna bi jàng yañ fa doon jàng ak sikkar ya ak màggal ya yan way la ban waykat moo ko doon way musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde nelaɗo men mouhammad sallllahu alayhi walih wa sallam hutba men hannde wonno al adilla al aqliya ala anna al isa laysa bi ilah hutba men wonno dalillaji ɗi annduɗa neɗɗo so miijima e haqqille makko o anday oɗo isa o wona allah o wona ɓi allah ceerno goto biyeteɗo ibnul qayim o namdi namde o wi wiyoɓe allah ina jogii ɓinngel allah ko neɗɗo o namdiɓe o wiɓe onon wiyoɓe noon ɓe mbiɗa jogii namde ɗe namdimi on jaaboɗe kam mi anda mbele oɗo biya toon ko allah ko allah walla o wona allah on gandi ñalawma arino e ñalawmaji yahude en ɓe jaggi isa ɓe kaɓɓi mo ɓe daasi mo ɓe piimo ɓe tuuti e yeeso makko ala ko ɓe waɗani mo e ko boni ɗum fof gasani ɓe jaggi mo ɓe kaɓɓi mo e leɗɗe hono no allah subhanahu wa taala riddiri wi ɓe mbaɗanimo noon wama qataluhu wama salabuhu kamɓe ɓe wi ɓe mbaɗimo noon nde ɓe gandi o maayi ɓe kaɓɓitimo ɓe ubbimo e kabri makko o wayi toon balɗe tati après o wuurti ibnul qayim wi allah baɗeteɗo ni on allah mbele ñalawma momo watte noono ɓe jagguno eɓe mbara mo omo welti e ko jeyaɓe makko ɓe mbaɗannomo walla o wawa hen haydara so tawi omo welti hen kon jeyaɓe ɓeɗon ɓe dañi baraji so tawi o weltaki hen ndeke kon jeyaɓe makko ɓeɗon ɓe ɓuuri allah o doole ɓe ƴaggi allah o ɓe kaɓɓimo ɓe mbarimo allah batteɗo noon est ce que ko allah kono ko paameten woni allahu subhanahu wa taala ɗum ɗon kanko o handani hen ɗum tagui kanko allah nde o mantata annabaɓe holko wi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin holko tagi allah taggi allah yetti annabaɓe ɗo nelnoɓe pesko ko ɓen gandi sifaji makko ɓen ɓe kandananimo e ɗum ɗon ala hen goto meɗɗo wiide min komi allah hatta ɓeɗo wiyoɓe isa ko allah isa o riwi ɗum ɗon e hoola makko o wi kanko o wona allah kanko ko jiyaɗo allah kanko ko maccuɗo allah ko noon o wi hoore makko kono anden ɗiɗo feetuji waɗeteɗi e nder leydi walla e o- dow dow ndiɗo leydi e oɗo aduna ko ɓuri hen heewde waɗoɓe ɗum ko enen julɓe ɓe tan sa yeehi ko wayno hande re- leydi wande sénégal ganda 95 pour cent wonɓe toon ɓe fof ko julɓe so ɓe mbaɗi ɗiɗon feetuji ko kamɓe so fit- feetoji ɗiɗon feeñi ha dañi ko yimɓe mbiyata hen tan ko kamɓe kamɓe mballi ɓe te ɗum ɗon julɗo fotani hen wallude goɗɗo mo wona julɗo ganden enen ken julɓe feetuji ɗiɗi tan dañɗen korka e tas so gasi gasi ala goɗɗum kone wiye won ko ceerno goto namdi o neli en yen namdonomo e ɗiɗo gammuji watte hande e nder leydi ndi ɗiɗo mawliduji yimɓe ɓe waɗata kanko ceerno o fawi hen haalis hewɗo o wi omo yiɗi andude ɗeɗe gueɗo kala anduɗo tan gadduɗo réponse euh, jaabuwaji ɗi mawo mawo totte kalis o foof o wi nelaɗo sallallah sallam beele o meeɗi wadde mawlud no foti laabi oɗi mawlidaji ɗi hol wuro o waɗi ɗum makka o waɗi walla médine holno foti geloji o wari holno foti gay o wari holno foti baali o wari holno foti mbewaji o wari hol jimde yimotenoɗo hen hol mawɗo mo nodduno yo ar tawe on ummi e aduna o yeehi tawoyi nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam emin faɗa jaabuji ɗi e moɗon inchallah bi isnillah mbokk juliɗi buñ jullee ba pare inchallah am na sunu ñaari mbokk jullit yoo xam ne dañ leen di laajal ndimbal léeg-léeg ci jumaa ji ñu laaj waaye xam ngeen ne dëkk bi nim mel ci wow ak métti xam nga ne jullit bu tëdd juróomi at feebar feebar nekk jigéen kenn du wax ne kooku sonnul kenn du wax ne kooku faju na ba sonn kon du wax ne kooku de la mu yoroon am na lu ca des ku mel noonu tey bu ñëwee ci ay jullit indi ay këyit yu leer di war a def ay analyse wala jë war a jënd ay ordonnance nga xam ne la mu yoroon yëpp fajoo na ko ba mu jeex kooku fan nga mën a jëm lu dul ci jullit yi kon looloo tax yenn saa yi fii laaj yi bari ñuy laaj mbokk yi am na sunu benn mbokk boo xam ne xale bu ndaw la ci jamono bi muy jàng musoon na jël alfala yi nekk ci Sénégal yëpp premier waaye kooku dafa feebar nii ma leen di wax lu ëpp juróomi at mu ngi tëdd wala juróom-benni at wala am na ñenn ñoo xam ne xam nañ ñaata at la tëdd fii kii yaa ngi ci kaw kon suñu paree dafa am fu ñu ko bëgg a yóbbu ñooñu di ko def looy analyse yu seer a seer am na yeneen mbokk yoo xam ne tamit dañoo am ay jafe-jafe ñaar lañ ñi ngi ci kaw ñu bëgg suñu paree julli incha allah mbokk yi lu kenn ku nekk am yéene leen ko ñu daal leen koy boole mbokk yi jox leen ko ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wuutalal nu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na saa yu suñu xëyee am na malaaka bu taxaw naan yow mi yow kiy joxe joxeel yàlla dina la dolli yow mi ŋot tëyal yàlla du la wuutalal dara ma anfiq ya bnu aadama anfiqu alayka joxeel ma jox la te wa ma tuqaddimu wa ma tuqaddimu li xayrin min xayrin li anfusikum lépp lu ngeen mën a joxe rek ci lu baax seen bopp ngeen ko joxeel ku joxe rek sa bopp nga ko joxeel kon ñu ngi leen di soññ ci loolu yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala ittibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahuma ya musabitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله